asalaamaaleykum mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam xew-xew bi benn la mooy naqar ak tiis bi nga xam ne dal na ci askanu Sénégal gannaaw accident bu métti ba am fële ca six ba ñu bëri ñàkk ci seen bakkan ñu bëri it am ci ay gaañu gaañu ñuy jaale Sénégal gi yépp rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seeni ñoñ di bokk ñoom tiis wi ak naqar wi. bu loolu weesoo nag euh, démb ba léegi gis nañ ay lim yu uute ñu koy joxe ci ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci boobule accident ñuy ñaan yàlla bu mu amati euh, ci suñu réew euh, Sénégal comme ni ma ko waxee gis ngeen lim yi bëri na ku ne di joxe ay lim wante bi ñu demee ba ngoon gis nañ ne autorités yi génn nañ joxe ay chiffres yoo xam ne wax dëgg yàlla nag yooyu la chiffre lañ mën a jàppee lu officiel ndax ñoom demoon nañ ba ci terrain ba nekkoon nañ fa itam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy sapeur pompier yi policiers yi ak ñi nga xam ne ñooy personnel sanitaire ba génne yooyu les chiffres joxe ko kon nag yaakaar nañ ne ñëpp waroon nañ mën a dëpp ci yooyu les chiffres nga xam ne kon autorités yi joxe nañ ko ba ba leneen di am wante euh, bu suba tey bii dañoo xëy gisaat ci li nga xam ne moom mooy presse écrite bi ay chiffres yu wuute am na ñoo xam ne sax euh, dem nañ ba ne euh, li faatu mot nañ soixante personnes donte nag ñu bëri ci presse écrite bi gis nañ ne kon chiffre trente neuf boobu nga xam ne njiitu réew mi moom la joxe démb ci limu ñi faatu ak téeméer si nga xam ne ñoom ñoo am ay gaañu gaañu ñu bëri ci presse bi gis nañ ne kon chiffres yooyu ñoom lañu joxe wante am na ci geneen wet gi ñoo xam ne yeneen i chiffres indi ñii di wax cinquante ñee naan ëpp na quarante am ñu dem ba soixante comme ni ma ko waxee sànq ñu yaakaar nag ne euh, jamono ji nekkul jamono joo xam ne dañ cee war a nekk euh, di werante di xiiroo ka ngaayoo wala ku nekk di bëgg ne man ma am information bi ma koy njëkk a publier ak yi jamono jii ñu nekk dañoo jàpp ne nekkul jamono boobu euh, ndax nañu bàyyi xel bu baax a baax euh, ñi nga xam ne saa yi ñoom ñoo nekk ci naqar bu fekkee nag euh, dañoo am yenn comportement yi day xaw a doy waar. ndax bu dee ku nekk day joxe chiffre ki wax jëmale fii kii wax jëmale fële loolu mën na yokk. tiitaange ak njàqare bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seeni ay ñooñ am nañ ko jamono bi ñu nekk nii. kon daal woote bi nga xam ne ñu ngi koy woote di ci woo bopp di ci woo sénégalais yépp moom mooy fi mu nekk nii nekkuñ ci moment boo xam ne ay moment xiiroo la wala ngaayoo wala waxantelu ñëw ak yi ni nañu doon benn nañu ànd ñun ñépp nañu ànd. doon benn am comportement yoo xam ne eh, fi mu nekk nii ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëj dinañ gis ne kat eh, sénégalais yi yëg nañ li ñu daal te bokk nañu ak ñun li nga xam ne moom mooy tiis ak naqar eh, yi nga xam ne kon ñu ngi koy dund. bu loolu weesoo nag kenn werantewul ne secteur transport bu Sénégal moom am na ay rëq-rëq am na ay jafe-jafe yoo xam ne lu ñu war a jooyante la loolu moom yaakaar naa ne ñun ñëpp ànd nañ si. nguur gi nee nañ dinañ amal ay waxtaan bés bu tey ñu ngi xaar ba xam lan moo cay jóge bu weesoo nguur gi ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur transport bi ak ñun ñi nga xam ne kon nit ñooy jël oto ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo yor seen ay oto bopp di nekk ci kaw tëli bi ñun ñëpp ñoom ñoo war a boole suñu ay doole ngir kon euh, xeex ba li nga xam ne kon moom mooy euh, accident bi nga xam ne kon am na te muy lu njëkk ci Sénégal. mu bañ fee amati te li nga xam ne te moom mooy accident yi wàññeeku bu baax a baax kon daal li ñuy fàttaliwaat suñu bopp di ko fàttali Sénégal yëpp moom mooy jamono ji ñu nekk ni nekkul ay jamono yoo xam ne dañ ci war a xiiroo wala di si wala di si lu ñaaw wala ku nekk di wax ne man maa am dëgg kene amul kee amul dëgg nekkul jamono jooju lañ nekk nii waaw national la ñu wax muy dëj boo xam ne ab dëj national la ñetti fan tàmbale ci tey kon ngelawaay nañu booloo nañu ànd doon benn boole li nga xam ne moom mooy suñu ay doole boole li ñu neex ak li ñu naqari yépp muñ ko ba sax ñu weesu li nga xam ne moom mooy euh, ñetti fan yi nga xam ne kon moom lañu ñu décrété muy deuil national. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu dee am na lu dëgg ci wax ji ngeen xam ne sama motadi la bu rafetee maa ngi koy sante yàlla euh, buur bi di ñaanit yàlla na sotti jàmm bu baax a baax fii ci Sénégal te li ni mel yàlla bu fi amati wasalaam